politique bi dañuy jaare assemblée nationale. Hmm. sëriñ bi assemblée nationale ay coow ay xeex. Hmm. ba sëriñ Moustapha Sy gis nga ñu wax ko fa wax ju ñàkk teggin. Hmm. ba am ñu jóg duma ndaw si ndaw sa dugal na plainte jàpp na ñaari député tëj kaso bi ak la xew assemblée yëpp. léegi en tant que doomu daara mais kuy xeltu boo seetee assemblée nationale bi da ngay dëppoog ñi naan. nañu supprimer assemblée bi wala assemblée bi mooy bi gën bi biñ masa am. waaw dama dama faral di ne. képp ku fere di lekk jën. jën jën waaw. ci jamono. Hmm. ba yàlla di wane buftu gi. Hmm. képp ku judduwaat Sénégal di ku judduwaat Sénégal si jamono toll nii. Hmm. di lekk jën. dignité. ak personnalité. ak siixlu wax ju ñaaw. ak bañ jukko ju ñaaw mëntul ne. mënatul ne boo supprimé woon député yii. solution ba nga yaakaar ne boo ko amoon tey rek la. bu ñëwee mooy gën a gis du ensemble ci jikko yi la. ah jikko yi la mais gis fa xam-xam sëñ Moustapha gis faa fa ku mel ni Guy Marius Sagna ak ñeneen ñeneen ñoo xam ay ay tedd lañ yu bees tax Pape Djibril Fall mais xam-xam nga fay dégg. waaw xam nga tey dafa am foo xam ne xam-xam maanaam bu fa tappalee ëppee doole. Mhm. xam mhm. ñoom soxluñ xam-xam. Mhm. président bu ñu ànd ak président Macky Sall. waaw xam ne daanaka ñoom ñoom ñoom matul assemblée ndax boo boolee wollu boole ci Pape Djibril Fall. boolu ci wa waa APR. kon gis nga ne waa yeeyu askan wi donc ñoo fi nekk opposant waaw ko ñoom bëriwuñ déedéet waaye léegi ñële ñoom bëgguñ dëgg hmm. lépp lu fa ñëw te arrangé Macky Sall neex naqat nañ ko woote ñii ñoom nañ indi kaamil bi teg indi xadd ci teg gaa yi soxla wuñ ko li leen loolu fokk ñu Sénégal xam ko Guy Marius Sagna lépp lu mu ko wax mu intéresse askan wi te intéresse wul APR ah, amuñ ci dañ ko taxawaat si nga ne loolu foofu ñu xamee ko te ñoom ñoo fa ëpp doole Barthélémy dëggu Guy Marius du léegi lay am sens bis bu yàlla ba mu bokk ci gouvernement def dindi la am sens mais jamono toll nii ku ci ngëb sa laaya béyow nga téye ko ku ci ngëb sa xaddis béyow nga bokk d'accord loolu intellectuel gars yi ñorul dëgg ji la moo leen ñorul ñoom d'accord ni Farba Ngom mhm. dëggu Assemblée nationale intellectuel ko Farba intérêt président de la moo ko ñor mais pas dëgg ju waaye askan askan wi indi ah oui xam nga il faut nga nga wax lii dëkk li nga xam ne moom la ñuy dundi seen xol yi. ku ne xam na ne Farba waaw bu ñu xëyoon suba ñu ne nañu supprimer alquran ak hadis maanaam nañ ci ay yeeg ay yeeg hadis yi bu fi amoon assemblée nationale. Hmm. Macky Sall nag la ma bëgg mooy loolu na jàll. Hmm. te alquran ñu nekk si pays la ku ne am droit jàngee ko fa mu la neexee. Hmm. barki yàlla Farba Ngom ak ñi muy àndal bu ñu ñëw taxaw ne nañ ko wati mu jàll. ah lii mooy dëgg ci. kon ñoom président Sall rek moo leen ñor. président Macky Sall dong leen ñor xam nga kële boot di bëri bu daanoo nga daanu. waaw ñoom ñëpp Macky Sall leen bon. Mhm. bu daanoo ñoom dañu ñu daanu. ok ñooy gën a jël. Mm, tax. parce que Macky ñoom Macky Macky day daanu seen kaw. waaw ah day daanu seen kaw. ñoom ñu daanu seen kaw ñoom bu ne bëri daanu ñoom comme dañu ne bot. Mhm. day Macky day daanu seen kaw ak lépp lu tax si ko Macky Sall kon ñoom ñoo gën a métti jël. d'accord moo tax ñoom lu ñu mën a fexe ba sës ko ci miir yu mu bañ a dañ koy def. d'accord loolu la. mi ngi noonu euh, jërëjëf léegi nag noo gisee ndaw si li mu wax Serigne Moustapha si ñu bari nee nañ garaawul parce que Serigne Moustapha moo sol mbubbu politique dugg ci biir kon nag Serigne bi euh, si lu mu dégg rek kon war na koo dégg ndax noonu ko ko gisee. xam nga politique. Hmm. jamono yonent yàlla yi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba tey. Hmm. politique dafa am. Hmm. xam nga bu ñu demee tey. ba un jour yonent bi par exemple julli ba Omar bi Omar tuubee. bi Omar tuubee. ñu gis ne jullit ñi commencé nañu daanaka quarante personnes. yéen bi dafa teg ay stratégie leneen hmm. dama bëgg sab ay gouverneur par exemple hmm. ne Omar Ousmane Ali war leen fas yi ngeen dem ci dëkk yi ñu wër hmm. ngeen ngeen yeggale fa diine ji d'accord gars yi bu ñu xëyee dem toog kii di jàng arrahman kii di jàng samia kii di jàng la ko la mën a jàng pour delloo si nañu si yàlla noonu la def nag ba kenn ku si dëkk ba nga nekk nga am fa ay quelques personnes yu gëm ñu boolewaat ko créer parti. créer ko drapeau drapeau ñu bind si la ilaha illallah muhammadu rasulillah drapeau bi nekk vert blanc ba xare ba dara xare Uhud moom lañu jege ci moom drapeau bi. Mhm. comme tey APR ni ñu amee drapeau am couleur. Ah, d' accord kon politique. Mhm. képp kuy nitu diine. Mhm. dëkk ci mi. am nga door waa nekk politicien waaye ba ut ut nag mbubu diine bi nga sol. bokkul dara bokkul dara. parce que sëñ si am na tijaan si. bari na ku nit lu nit di jàng ci njàngaleem. te yaa ngi ko amee ci lim te lépp loo jëriñ si moom bu fàtte ne politicien la woon. waaw waaw ndax am na élection fi bokkoon. si am na yu ñu wax ne sax naan moo ko gagné. moo ko gagné ñu sàcc ko yooyu. Hmm. kon ba fi ma toll wax yow nii loolu du ma sa ñàkk ci réew mi. d'accord waaye nag nit ñi dañoo xamul ne à quatre-vingt-dix pour cent dem politiciens yi. Hmm. gëmuñ yàlla. dëgg la gëmuñ yonent bi. Hmm. gëmuñ Seexu Tijaan. Ah. barke Alxuraan bu yàlla xëyoon tey ne képp ku julliwut nekk autorité autorité. Mhm. ci réew mi. Mhm. na la faat. Mhm. boo amul sax du ñu am président de la république. ah am premier ministre du ñu am ministre de l'intérieur du ñu am ministre des forces armées du ñu am président assemblée duñ du ñu am ay député assemblée nationale. kon na ngaa bëgg a wax ni gars yi duñ julli wala mënuñoo julli. dama ne ak quatre-vingt pour cent ñoom laa wax ñoom autorité député yi autorité état bi. ñu bëri si ñoom duñ ci julli. ah oui. billaahi laa la wax. ak quatre-vingt-dix pour cent ci ñoom. duñ gëmuñu sëñ Bay Si Mansour waaye mënuñu faa ñàkk dem nag ndax dafa am ñu ko yaakaar te ñu leen yaakaar yoon ekkatalite parce que mbooloo lañ soxla bu ñu gëmoon sëñ bu ñu gëmoon sëñ Mountakha Mbacké deux cent millions am yi joxoon ci coronavirus bi tey doo dégg na saaw na nañ ko nag ndax suñu soxla bi mi nga xam ne mm-hmm. gannaaw yàlla loo ko loo boo bëggoon nax sëñ Tuubaa léegi da nga nax mm-hmm. loolu nag moo tax nag problème bu amee mm-hmm. léegi gis na ñoom nag ñuy dem ci kër diine yi waaye gëmuñu leen maanaam nit ñi fa ñu xam ne éminent ñii bi ko ama mhm. moom ak ñi mu ànd dañoo gëmut yenent bi gëmuñu Cheikh Tidiane gëmuñu si Amadou Bamba gëmuñu ket bay gëm si Moustapha ah d'accord am naa li nga wax kon dañ koo def pour cokkaas ak neexal seen kilifa kese parce que gis nañu ne xam nga Macky Sall la hmm. yàlla da ko joxoon darajaay président public waaw léegi da ko wàccee ba sa darajaay gune maqaama maqaama gune gune gune gu am cinq ans lu waral loolu ndax boo xoolee seen bi passé nit daf organiser concert mu éliminer ko ñu teg ci ñetti fan mu recevoir ay rappeur mm-hmm. bi pale waaw parce que day defante ah. ak rappeur yi ànd ak moom ah sëñ bi defante nga ko teg waaw defante la ok day defante ak rappeur yi ànd ak moom pour walla na leen ba samba bañee. xaw ma kan rajo. Mm. parce que ñi dañ fee taxaw daan ni bul ko sax jéem ay troisième mandat. waaw xam naa dinañ ci ñëw après moom mu recevoir. ay rappeurs ay ay d'accord waxtaan ak ñoom kaf ñoom. wan ngaa leen si nga bañee ñi nangu. ok kon defante la defante googu. Mm-hmm. président de la république bu dee ba di ko def. Mm. daanaka dafa dellu si maqaama xale. en général na ak quatre-vingt-dix pour cent kunguram di jeex noonu lay mel. Ah. alawaat ba mu toogee fii ne maa waxoon waxeet. waaw boobu yaakaar na ne mooy ponkal mi moom rek mat. ndeke booba yàlla nga ko wàccee ci maqaama gone mi nga xam ne lu wax yàlla nga si topp dara teg ci ay at mu daanu d'accord loolu lii day wane nguur gu jeex day tegtale nguur gu jeex ndax boo xoolee juróom-ñaari at yi mu njëkk def mhm. ba si ba si deuxième mandat ñetti at yi mhm. Macky amutoon jotu opposant ñi ko contre ñoom amutoon seen jot mais léegi ne am na seen jot waaw képp ku contre dana fexe ba am kenn ku la jege ku mu jëm recevoir ko foto ko wala ne la xoolal ah. mu ngi nii d'accord kon moom noonu lay xeexee. noonu lay xeexee parce que boo xoolee benn affaire am na ensemble national bi nga dugg nii laa la bëgg a wax. Mhm. ñu xëy ñu ne député yi jàpp nañu ne Fara Gana Delie ndax dañuy dóor ndaw si. waaw te effectivement Fara Gana Delie. mais xam nga foofu benn affaire laa la xamal. Mhm. député yeewu askan wi foog ñu foog ñu yeewu. Mhm. dem nañ ci élection yi ñu am quatre-vingts députés. ñu ñëw ensemble statistique bi Farba Ngom ñu ko teg mooy nañu indi le maximum ci ay jigéen ci awa ci waa ñuy énervé la ku mel ne ah, Barthélémy Dias daal di leen provoqué pour ñu réagir mu ñu ñu après ñu mën wàññi seen député yi ñoom daaw nañ ci bi dégg naa la maanaam bañ leen saagaandee provocation la provocation bañ leen saagaandee fayuñu mm-hmm. Barthélémy Barthélémy Dias kuréel Macky saaga na ko fayul mm-hmm. guy mari saa ñaar sax ci ñu ko saaga la jëntuwul leen dëgg la ñu xool nag pas-pas ni mel mm-hmm. ndaw si jaar leen fa am na benn député bu ne Farba Ngom moo moo moo bindi message éminent éminent ñi bi ne ko daanul mu daanu pour nga xam ne certificat médical bi day gën a am. waaw doole doole dëgg la pour gars yi mën a daan. léegi ñoom éliminé ñaar député amatuñ ma surtout ensemble tekkatuñu ko dara. dëgg la bu ñu jox ñi la cent vingt député yi rek. wax nga dëgg de macha allah jërëjëf Serigne Moustapha Dramé analyse boobu am na solo ci euh, diggante ni ñu provoqué waa Yewwi ba wàññi seen ay député waaye itamit ni président Macky Sall di xeexee ak ay noonam maanaam daal soo ko defee au lieu mu def la mais day dem xool ki la gën a jege. mu foto moom neexal ko pour wan ni la daal yaa ma bañ waaye kii ma ki la jege nangul na ma. d' accord.